loxom dégg ko ay loxoom mu ñaanal ko mu ñaanal ko ñaanal réew mi ñaanal réew mi li tax mu jóg li tax mu bis bu mag bi rek ne bis bu mag bi rek la bi mu jëlee bi nguur gi yàggul ñetti ñetti rek la mat ne bi mu nguur gi ñetti rek la mat waaye ci loolu waaye ci loolu mu ne proximité lay def mu ne moom proximité loolu lay def kilifa fu mu ne nee kilifa fu mu nekk dana ko fa fekk moom nag nee na moom nag ay tànkam ay tànkam fii ci Touba fii ci Touba seetee sëñ bi ba pare sëñ Cheikh. bi mu seetee sëriñ Cheikh ba pare. te jébbal ko lépp. jébbal ko lépp. nee na. nee na. dana nag. dana nag. dana siyaar njabootu sëñ siyaare ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi. ci sëñ Moustapha lañ jóge léegi. ci sëriñ Moustapha ca la ñu jóge léegi ñun ñëpp. dem ci sëñ Fall. buñ fa jógee jaar ci sëriñ Falilou. ñëw ci jëmm ju tedd ñëw ci jëmm ju tedd nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadal Basir. moom nag. nee na moom nag. ku dugg Touba. ku ko seet. da seet sëriñ Bas. ndax lim yor. ndax lim yor la. ñu wóolu ko ci lool nag. ne Mbacke ñu wóolu la ci lool. sa toogaay bu njëkk bii. nee na sa toogaay bu njëkk bii. boo gisee toujours sëriñ dan nekk sa wet. boo gisee toujours sëriñ dan nekk ci sa wet. nee loo loo man ne Baye Samba ne day bëgg lool. damay bëgg lool lool nee day bëgg lool lool lool. ndax lépp dafa murite. ndax lépp daa murite. lépp kilifteefe. lépp kilifteefe. kon li ko fi indi tey. kon li ko fi indi tey. muy dékkaat ay mooy déggaat lay loxo Mbàkke nga ñaanal ko nga ñaanal ko ñaanal réew mi ñaanal réew mi ñaanal réew mi bi mu jógee bi mu jógee délégation bu am solo la àndal délégation bu am solo la àndal ndax ministre sport ndax ministre sport de la jeunesse de la jeunesse la culture de la culture Khady Diène kay moo ngi ni suñ ginnaaw moo toog nii seenub taalibe waaye seenub taalibe la seenub taalibe la di seenub taalibe mu ànd ak son directeur de cabinet mu ànd ak son directeur de cabinet Abdourahmane Ndiaye moo toog nee waaye gouverneur waaye gouverneur bi doon liggéey ci liggéey bi bi doon liggéey ci liggéey bi def CRD bi def CRD bi ànd kook préfet ànd kook préfet sous préfet sous préfet toute l'administration territoriale. toute l'administration territoriale. ñu ñëpp commissaire spécial. ci commissaire spécial. ba commandant de compagnie bi. commandant de compagnie bi. délégation Bobby yemul Oui, La délégation bi nag xam le directeur général. le directeur général. de l'administration territoriale. de l'administration territoriale. xam ne territoriale waaw non, rek la. nga xam moi, gouverneur yi. yilif gouverneur yi. yilif préfet yi. préfet sous préfet yi. sous préfet ci délégation yi ki nga xamné ki nga xam. moy conseil technique moy technique communication. communication. Mohamedou Lamine. Mohamedou Lamine. mohamed Thierno. Mouhamadou le Tala. Tala. délégation délégation man mii. ne ak moom mii di Baye Samba Diaw. son conseil technique. son conseil technique. religieux. kon délégation boobu. kon délégation boobu. ñoo ànd ak moom. defe nan ni ñoo ànd ak moom. ne mat na sëkk. ñëw ma foofu. ne ñu baal ko foofu. député sëñ Cheikh Thioro Mbacké. honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké. bi ministre yi jàllee rek moom Serigne Cheikh Thioro ku nekk xam nga ne moo ciy topp. ak le maire de la ville. ak le maire de la ville. moom mii. moom mii. maa moom a yem. nee moo ñoom ñaar ñoo waaye mooy maire de ville bi. mooy maire de ville bi. ci délégation bi la bokk. ci délégation bi ci la bokk. kon def naa ne tënk naa ko de. nee ne tënk na ko. noonu yi àndee. nee noonu yi àndee. duggee ci Touba ba dëgg. bi mu léegi noonu rek la mu am bi. kon sëriñ bi. délégation baa ngi baa ngi noonu. léegi damay jox ministre bi. ñu dañuy bàyyi ministre bi ak kàddu gi. mu wax la. mu wax la. li mu jëlee ci président. li mu ci président. ak l'ensemble des ministres. ak l'ensemble des ministres voilà Khady Diène yore jeunesse culture sport délégation bi Samba Diaw lim ci président de la République Bassirou Diomaye Faye premier ministre bi jiite gouvernement bi Ousmane Sonko ak mboolem gouvernement bi teew fii tey teen indi ñoom seen ziar ak seen nuyo bés bi tey bés bu màgg la bés bu màgg la nga xam ne dafa am alal bu bees bu fi meññ mu ñu wax pétrole gaz ci kaw dal rek lay mën a jëriñ réew mi am nañ ci yaakaar lool ci yéen yaakaar bu yaatu am nañ ne ngeen ci ñaanal dina daal. ba mu antu ñaanal réew mi nawet bi ñuy dugg nii mu nekk nawet bu naat nawet bu set nawet bu amul yàqu-yàqu ñu génn ci ak jàmm et puis réew mi gën a naat réew mi des ci dal ndax ci kaw dal. léegi réew mu mel ni Sénégal nga xam ne dafa am alal bu bees bu fi mu ñu wax pétrole ak ci kaw dal la a jëriñ rek xam ne bu ngeen ci ñaan dina dal bu ngeen ci ñaan rek ñëpp dañu gis baax a baax mboolem délégation bi nga àndal di ministre Soxna Khady ak délégation bépp du gouverneur de la région du Diourbel ak ñoom àndal ñëpp di ci tudd suñu doom suñu Cheikh Thioro bi nga xam ne moo leen nekkal ci dëkk bi ba agsi ci Serigne Abdoul Ahad Ka nga xam ne moo jiite commune Touba te teertu leen ànd ak yéen ñëw kon daanaka kaddu yii sama kilifa wax Serigne Mahmoudan moo naa ci bañ a dundal genn kaddu ndax li mu waroon wax lépp wax na ko kon cant ak ngërëm rek lay doon ndax bis bi xat na te xam ne ni réew mi fi mu toll xat na ndax da ngay door da ngeen di door accès rek ni ko Serigne Mahmoudan waxee waxoon naa fi bu yàggut ne Serigne Saliou daa waxoon ne. nguur gu amugo ñeent fukk kenn du ko teg soxla waaye nguur gu amugo ñetti weer mën mënugut a def dara kon yaakaar rek ak ñaan lañ leen di may defal ndax nit ñi ñëpp maase jël seen yaakaar jooyal ko ci yéen ngir bëgg jafe-jafe yi nekk ak li ñuy yaakaar ëllëg ci seen adduna ngeen dimbale leen ci kon nag dañ leen ci ñaanal bu baax yàlla suñu borom dimbale leen gàttandu leen ci ba li réew ñëpp yaakaar ci yéen yàlla dimbale na gàttandu leen ba yaakaar ji àgg ndax ni ma ko daa waxee rek bu ngeen amee ndam ndamu réew ñëpp waaye bu ngeen amul ndam tamit ñëpp ko yëgal kon nag ñu ngi lay yóbbante moom ci président bi nga xam ne moo la fi yebal di ko Bassirou Diomaye Faye di ko yóbbante cant ak ngërëm ci déplacement bi nga xam ne def ngeen ko yàgg ñu ngi ànd ak ñëpp ngeen ànd ak ñun bis nga xam ne buñ leen gisutoo nit dañuy xam ne xat-xati réew mi mooy la jàpp ndax am réew dafa dis di yóbbantam ñëwee ci premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne yàlla def na sax ñëwoon na fi te siyaari sëriñ bi waxtaan waxtaan bu yaatu boo xam ne dara génn ci réew mi ak dëkk bi. yooyu itam ñu lay nuyu bu baax ndax yàlla def na miin naa la bu yàgg sëñ Samb Diop mii yàlla def na moo la fa daa indi waaye ma ma xam ci jikko ju baax ak ko labir ak ko fonk yoonu murit loolu laa xamul ci yow ba nag kon lañ lay ñaanal yow itam mission bi nga xam ne gàll nañ ko ci sa loos yaa ñëpp yàlla defal leen ci lim ak tawfeex ba mu àgg ni ngeen ko bëggee. te benn gàllankoor bañ ci am. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. damay ubbil Cheikh Mamadou Bachir rek kàddu yi li ci des mu wax ko ci làmmiñu boppam moo ñi ngi nuyu kilifa yii fi ñëw tey teew fi. di ministère de l'intérieur ak délégation yi lim yëpp. boole ci sunu doom ji di Cheikh Thioro yéen ñépp ñu beral leen nuyoo di leen santit bu baax nag cant gi mooy nit bu amee lu dul lenn te mu ñor ko te lépp lu muy mébét àddina ak àllaaxira ca loolee la ko amee ku ko ko jàppal rek cant war seen diggante ngërëm war seen diggante te lii ak yëg la ndax bis bu toll ni bisub Cheikh Abdoul Khadir dégg nañu ni ngeen waxe ngeen déplacé fi ñëw fii ànd ak noonu bis bi daanaka ci njeexteel yi nga xam ne lii nu gën a tàmbu ci bis bi ci waxtu wii lay doon ngeen ñëw ànd koog nun amee leen cant ak ngërëm lañuy def ndax ni ma ko waxee léegi li ngeen wax lépp nag dégg nañ ko jàpp nañ ko itam jàppal nañ leen ko itam ndax barab bi ngeen ñëw barabu kay la te yaakar du fi tassé mukk ndax day day lu suñ touba liggéey demb jëk tay li ngeen doore nak ci tambali ñi ngi am ci yeen yaakar rafet ci ni li ci kanam dana baax fi ñu toll nak ubbi nañu suñu bëtt di xool te nit lañ ñoo xam ni ci dëgg rekk la dox waaye mënu leen a leen a seereel dara dara dara lul rafet njort ci yéen ba keroo jëf ji teew nu door ko mën a seede jëf ji waaye taxawaay yi gisaguñ ci yéen moom ak rafet njort rek lan mën a am di leen ñaanal nag li ngeen mébét ak jëf yi ngeen bëgg a jëf ngeen jëf ko ba àggale réew mi foo xam ne li ñu doon yaakaar ci yéen bët yëpp dana ci tege yaakaar yi doomu aadama yi nga xam ne yëpp dañ koy yëkkati teg ko ci yéen jenn yaakaar bañ cee tas ndax sas wu rëy rëy rëy ngeen am ci réew mi sas woowu nag barab bii nga xam ne yaakaar du fi tase ñu ngi leen di ñaanal ci sëñ Tuubaa ngeen àggale ko ndax lu ngeen ci jëfit noonu ngeen ko jëfal Cheikh Thioro mi xam na bu baax sunu digganteeg Sonko ànd nag moom ba tey ñëw fa xam na li ñu daan seq xam na li ñu daan wax xam na kóllëre yi nga xam ni ëpp na 40 amoon suñu diggante seex mi xam na lépp kon nag bu ngeen ñëwee fii di xarit di wëllëre fekk ñu ci kër suñu mbokk mii nga xam ni ñëpp am nañ ci nun cër waaye nag moom dañ dul ñaari nit dañuy jenn jëm ndax ni sunu ñaari waajur yi meloon mu Cheikh Abdoul Ahad ak sëñ Abdoul Khadir loolu rek mooy sunu diggante